gannaaw bi ñu wooyee sa doom équipe nationale. man je suis sénégalais comme tout le monde yaa dama moom dama ko mos a fa d' abord j' étais en dehors en dehors de footballeur après léegi ma nekk entraîneur ñu sama doom pour man continuité la rek mbégte parce que sénégalais laa comme tout le monde di ko ñaanal rek parce que ñun ñaan rek la ñu am di ko pour mu gën a góorgóorlu pour mu gën a mën a vraiment gën dem ci kanam. mën tuuti qui non c'est que un ils qui parce que man je suis pas dafa am ñu réceptif, vraiment réceptif, man papa rek réceptif, dama est réceptif, kër ne ma réceptif, mais je sais que c'est un garçon qui est réceptif qui déglu wax amne, qui dina ak Alors, dégg-dégg surtout niveau bon sentiment comme tous les sénégalais hein, parce que Football na match comme ni nga ko footballé match bu xaw yam moins mais bon amna naa ni war na def plus quoi. voilà même au niveau même au niveau équipe nationale club aussi gis nga ni war na mën a sori ci carrière carrière. c'est que lolu duma ci mëna parce que ñun au niveau familial dañu am ko xamni dañ ko tënk. chargé de communication pour lolu on dit dañ ko ceinturer moo tax di ci wax day metti mais li ma koy souhaiter rek vraiment mu def un bon carrière voilà merci.